فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نظمها يمدح بها العبد الخديم عليه أبدا رضا الله الباقي القديم يحكم الله ما يشاء لا معقب في البرايا لحكمه فهو الرب أمره بين الكاف والنون يبدي بهما ما يشاء فهو المسبب acqalu nnaasi man yuraaqibuhu fi kulli xiinin wa fi maraadihi yargab yattaqihi alladi ihtadaa fa huwa adlun wa azizun wa zuntiqaamin lahu tub yafcalu allahu maa yashaa man yashaa yarxamu wallahu jalla man shaa yucadib tub lahu wajtanib nawaahiyahu wamtasili l amra waxshahu fa huwa aqrab huwa zul xalqi wal umuuri taala an shariki man lam yuwaxidhu yusjab istaqimu ilayhi qurbaa li cabdin mustaqimin ilayhi fi lxayri yadhab istaqaama alcabdu alxadiimu ilayhi fa xawaa xayra matlabin kaana yutlab li jiwaari arraxmaani caama shumuusin qad duci fi muxarrami raxala alxib nafsuhu almutma'innatu alqurba naalat laylatal arbua xawaa xayra matlab naalati nafsul mutma'innatu qurban wa jiwaaran ishruuna za shahri yuxsab faaza fiihi alabdul xadiimu bi qurbin kaana yarjuuhu min qariibin muqarrib siiqati nafsul mutma'innatu sawqan li liqaa'i allazil ahibbata qarrab amrahu rabbuhu tawalla falam tanxu ilayhi almuqaddamatu xawa alxub lilkaramati qad dacaahu alkarimu albarru wahuwa istajaaba ahmadu guyib man ila allahi kaana sirran wa jahran muxbitan gaaba gaaba xayru muaddib taaba maxyaahu caasha fi taacati illahi tacaala fi xidmati alxibbi yargab multaqa almakrumaati waarisu taaha fi sajaaya walxulqi man laa yu'annab aaba lillahi zaaridan indahu walxalqu yusni alayhi gaaba almuhazab nafcuhu nafcuhu alxalqa amma kaana ra'ufan wa raximan yudni ilayhi almugarrab nicma man kaana walidan lilyataama kaana yunsi alyatiima birraxmati alab nasaxa almuslimina fahuwa abuhum wa axuuhum wa xaaluhum wal mu'addib huwa shaykhu shuyuuxi kaana yurabbi wa yuraqi nufuusa kaana yuhaddib taabaca almustafa wa asxaabahu maa xaalafa alamra fa huwa maa saa yujannab aslaxa alqawma jaddadan nahja nahja almustafa alsaalikiina qaada ila arrab radia allahu anhu kaana imaaman mustaqiman yubdi alhuda wa yu'addib jaahada alkaafirina duuna suyuufin wa rimaaxin fardan wa ma zaala yaglib cilmuhu wa taqwa silaaxaahu arda bihima alkaafirina qad dawaxa alxib yassara alxayra lilladi kaana yabgihi wa anna alshiraara wa alsharra adhab aktaru almuslihina fi lchaabi islaahan nafa anhum aljafa waltaasub lilmusawaati qad dacaana wa anna qad nafa nixwata alraja lam yuxayab yakrahu yakrahu nixwata alladina iqtafawhu huwa maaxi dagaini alxayra qarab akrama almuslimina qaadamunaahum bitawaalifihi lahum kaana yaktub racyahu llahu kammala alkubara taabaca nicma alraaci alladi racya tayab barakaatu alcabdi alxadimi xabatna bilmuna qad zaala alshaqaawa altazabzub baaricun faaqa alawliya wa calaahum saabiqan falacmaalu acmaalu tayib kaana daa xashyatin wa zuhdin wa taqwa wa wafaa'in min azbi mawlaahu yashrab raabixun fi buyuucihi minhu mawlaahu ishtaraa maa qad baacahu duuna mutcib ihtadaa lilxadi alcazimi caziman fawa dëban ila alcidaami yuxabab dawuhu dalma qad jalaa can zawihi huwa qutbul aqtaabi faaza bi mansab yumnuhu qaadal amna linnaasi anhum zaxzaxal munkaraati fi yumnihi irghab huwa gawsul waral giyaasu nadaahu yurtajaa man lahun taxal xayra yasxab تصرف الموبقات عمن تلاه وإلى جنة النعيم يقرب منهل يا بشرى لذي ظمأ قد أمه يبغي الري دون تذبذب رحل الصالح الذي كان أيضا مصلحا قد غاب المربي المؤدب ضيف ذي العرش يا خديم المقفى يا سرور الأحباب يا خير مشرب يا سراج الهدى المنير أياما لا يدانيه عابد ذو تقرب يا عماد الدين الذي الحق أبدى لمريديه جاليا كل غيهب هذه خدمة رضاك بها يطلب عاص جم المظالم مذنب تنتحي أمداحي إليك حباني بك بالفتح من أنار لي اللب فزت بالمكرمات يا من حباه بمزاياه المصطفى من هو الحب أنت قطب الأقطاب قاد لك الله العطايا فأعط من فيك يرغب درري تنحو سرمدا لك يا من laa yujaarika caabidun kaana yansab xuz madixi jaaral ilaahi tacaala xuz sanaa'i yaa xayra man kaana yaktub laka madxi yanxu fa anta imaami wa malaadi fa man yaluz bika yaqrub yaxtawi alqurba man bikum laada inni laa'izum bilabdi alxadimi almuhadab faariqa alxabbi wannawaa laka xamdi wa shukuri ya man xabaani bimatlab yashkuru allaha jalla kulli hadaani bilxadimi alladi lahu almadxa aktub calama almakrumaati ya man taxalla bisajaaya muhammadin zaata addub batal addiini saaxiba almajdi ya man qad ataana bi xayri nahjin wa mazhab أسد الكافرين يا من غنينا عن حروب به وفي السلم نغلب دين خير الورى بك اعتز شكرا لك فخر السودان يا مخزي الخب يا حبيب القرآن يا من هداه حلت عبدا به لخالقك الرب وخديما به لخير البرايا حين كان العدو يلهو ويلعب udxulil jannata starix taalama kunta tutiicu arrahmana rabbaka tatcab dur bi amnin fi jannati llahi jaawir xayra jaarin fi jannati laa tuxarrab xaalidan fiha daa ridan wa amaanin mac muriidi ka man kafaytahumu tab laka yanxu min alkarimi jazaun xulta ridwanahu laka alxayra yajzub yajzubu alxayra sarmadan laka rabbun bilcataaya yurdika yaa za tajannub jaawiri rabba fi ljinaani mucaafan murtadan yaa man fadlu عنه ليس يحجب نعمة الخلق خذ مدائح حب لك بالحب مال فالقلب طيب نبتغي من رب البرايا صلاة وسلاما لذي الكلام المطيب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 di jiital ci nuyoo bi ak ci ziyaar bi sëriñ Mouhamadul Muntaqal Mbakki mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Ahmadul Xadim di jaarale nuyoo boobu nga xam ni moom lañ ko nuyu di ci jaarale ab nuyo jëm ci mbooleem njabootuk Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ñu kenn niki noonu tamit di ñaan suñ borom tabaaraka wa mu dolli ko wér gi yaram te defal ko fan wu gudd defal ko tawfiix ju bari ba mboolem naal yi nga xam ne mi ngi koy naalal lislaam yéene ci jaamu suñ borom tabaaraka wa taala ak liggéeyal Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu suñ borom tabaaraka wa taala bàyyi ko ak sagoom bam eggale ko lépp niki noonu di nuyu mbooleem kilifay diine yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi ànd ak seenu njaboot di taxaw lislaam di leen ñaanal kenn ku nekk ca ñoom fam féete ci toolub lislaam ba di fi liggéey suñ borom tabaaraka wa taala defal ko fa tawféex ju kawe di nuyu tamit mboole mbokki jullit yi nga xam ni dañoo bokk ak ñoom réew mi dëkk ak ñoom dëkkinu rafet ñuy sàmm xaq suñ borom tabaaraka wa taala ci ñun ñu nit ñuy sàmm borom tabaaraka wa ci ñoom di ñaan suñ borom tabaaraka wa taala ànd bu rafet boobu yàlla na ko suñ borom tabaaraka wa taala saxal ginnaaw nuyoo bi mbokk mbokk yi ak ziar bi dañuy dikk rek ci xasida goo xam ni dañ ko def rek ci cheikh ahmadul xadim radiallahu anhu ci bisam boobu nga xam ni mooy bis bi ko gënal ci ay bisam muy bisam boobu nga xam ni mooy ñaar fukki fan ci weeru tamxarit bis boobu nga xam ni musta deñ di ñaan suñ borom tabaaraka taala di ko wax ni ko na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi nga xam ni mooy bis bi may dajeeg yow kon xasida gi ñu ngi ko tënkee ci waxi suñ borom tabaaraka taala ji wax ci suuratul fajri ca mujj ga te moo di yaa ayyatuha nafsu almutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati aaya bi ci lan tënk xasida ma wax ni yaxkumu llahu yàlla de mooy atte maa yasha lu ko soob laa muaqib amul kenn koo xam ne nii dafay topp jenn aji topp joo xam ne dafay topp li xukmi yi ab atteem fil baraya ci mbindeef yi foofu wa ndax moom yàlla ar rabb mooy borom bi moom suñ borom daal mooy at mooy ki nga xam ne mooy atte lu ko soob lum xas atte nag kenn ku cay toppaat di ca seet lenn lum def rek noona la amruhu moom suñ borom nag mbiram baynal kaaf yi mi ngi nekk ci diggante kaaf googee rek wan nuuni ak nun nga muy kun yubdi moom suñ borom dafay feeñal bihima ci kaaf googu ak nun googu te moo di kun maa yashaau lépp lu ko sopp ndax moom yàlla al musabbib mooy ki nga xam ni mooy sabab lépp lu am rek moom suñ borom tabaaraka wa taala moo ko sabab ma ni aqalu naasi ki gën a am xel ci nit ñi nag man mooy ki nga xam ni yuraaqibuhu ma ngay fuglante ak yàlla fii kulli xiinin ci bépp jamono wa yarxab di xemmeem fii maraadihi ci ay ngërëmam ki ëpp xel ci nit ñi daal mooy ki nga xam ne nii mi ngi fuglonte ak yàlla di xemmeem ci ay ngërëmam yattaqi yi moom yàlla nag dana ko ragal alladi képp koo xam ni ihtadaa gindeeku na fa huwa ndax moom yàlla addulun aji maandu la wa azizun waaye ku tedd la ku am sañ-sañ la ci nguuram wa zuntiqaamin te kuy mbugale la tuub kon na nga tuub lahu jëm ci moom moom suñ borom daal képp koo xam ni nii daal gindeeku nga di ko ragal ndax ku maandu la ku tedd la ku am sañ-sañ la ci nguuram te mooy ki nga xam ni bu yëkkatee ab yaram nar a kenn du ko ni déet yafaalullahu yàlla daal dafay def maa yasaa lu ko soob man yasaa ku ko soob moom yàlla yarxamu mu yërëm wallaahu yàlla jàlla màgg na yuadib mooy mbugal man saa ku ko soob yàlla daal mooy def lu ko soob ku ko neex mu yërëm ku ko neexit lay mbugal te kenn mënu ca dara tuub kon na nga tuub lahu jëm ci moom wattanib ta nga wattandiku nawaahiyahu ay terem wamtasilil amra ta nga jëfe ndigalam wax sahu ta nga ragal ko foofu wa ndax moom yàlla kat aqrab moo gën a jege moo la gën a jege sa buum xol wa laqad xalaqna al insana wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kooku nga xam ne nag buum gitee sa xol moo la ko gën a jege kooku mat naa ragal wa moom yàlla moomu zul xalqi mooy borom mbindeefi wal umuur yi mooy borom mbir yi taala kawe na an sharikin wëlif aji bokkale joo xam ne nii dafay bokk ak moom nguuram gi man lam yu waxidhu kon képp koo xam ni wéetalu ko moom yàlla yus jab kookee na xam ni ku ñuy alag lay doon istaqimu na ngeen jub ilayhi jëm ci moom yàlla tuubaa texe li abdin ñeel na ab jaam mustaqimin buy aji jub ilayhi jëm ci moom yadhab nga xam ni dafay dem rek fil xayri ci aw yiw ma ni daal moom suñ borom tabaaraka wa ki nga xam ni daal moo amuk texe mooy jaam bi nga xam ni dafa jub jëm ci moom te ab demam yépp ci aw yiw rek lay dem ma ni istaqaama jub na ilayhi jëm ci moom al abdu jaamub yàlla ba alxadimu ba daan liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te moo di cheikh ahmadou bamba fa xawaa ca la làqe matlabin ngën ji sàkkuteef kaana boo xam ni nekkee son na yuttalab dees ko sakku mani ni moom Cheikh Ahmadul Xadim nag ci jub ji nga xam ni daf ko juboon xocc jaar fa ko suñ borom tabaaraka wa taala jaarloo ca la làqe sàkkuteef boobu nga xam ni ku baax ku fi mus a jaar rek mus nga koo sàkku te loolu ma ngi koy wax ca xasidaam ga malaktu bi fadlillahi ma kaana yushtaha wa sayri lahu min qablu bil muntaqantaha nee na moom daal moom na ci mbaaxug yàlla la nga xam ni mboolem ñu baax ñi dañ ko doon bëgg di ko faytu nee na nag dox ba mu doxoon jëm ci suñ borom tabaaraka wa taala ànd koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dox boobee jeex na ma ni qad du'i moom Cheikh Ahmadul Xadim woowees na ko di jiwaari rahmaani ngir mu war a dëkkaale ak yàlla aama shumuusin ci at mi nga xam ni moom la ñuy taarixele ama shumus wala bokk nga ni wamsa shin te moo di atum junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn ci gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ak 1927 ci ati tubaab yi fii muharramin loolu nag mi ngi amoon ci weeru tamxarit raxala ma ni laxas na dem na alxib soppeb suñu borom tabaraka wa taala ba nafsuhu bakkanam ba almutma innatu bakkanam nga xam bakkan bu dal woon naalat am na alqurba ak jege yàlla laylatal arbua ca guddik àllarba ga xawaa làq na moom cheikhul xadim xayra matlab ngën ji sàkkuteef ma ni daal ci guddik àllarba googee nga xam ni moo dëppoo ak ñaar fukki fan ci weeru tamxarit ca la làqe moom cheikhul xadim radiallahu anhu jege googu nga xam ne nii moom la doon mus di wut fu mu toll ci suñ borom tabaraka wa naalati am na an nafsu bakkanam ba al mutma innatu bay aji dal qurban ak jege wa jiwaaran akuk dëkkaaleeg yàlla ishruuna da shahri ñaar fukki fan dal ci weer wii di weeru tam xarit yuxsab nekk na di lim boo xam ni lim bu ñuy calculer la lim la boo xamante ni nii kenn dit ko fàtte manifaza texe na fii ci ñaar fukki fan yooyu ci weeru tam xarit al abdul xadimu jaamu suñu borom nga xam ni moo doon liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ca bi qurbin ci jege goo xam ni kaana yarjuhu ma ngi ko doon yaakaar min qaribin tukke ci aji jege ja nga xam ni muqarrib mooy jegeel boppam ku ko soob ta moo di suñ borom tabaraka wa taala mani siiqat wammatees na an nafsul mutmainnatu bakkan bu dal ba sawqat ak wammat li liqaa illadi jëm ca dajee ka nga xam ni qarrab moo jegeel al ahibata soppe ma ni daal moom Cheikh Ahmadul Xadim radiallahu anhu bakkanam boobu nga xam ni nafsun mutma inna bakkan bu dal la ne ma ni ci bis boobu lan ko wommat nag mu war a daje ak suñ borom tabaraka wa mi nga xam ni ay soppeem moo leen defal ak jege ma ni tawalla dafa féete woon ak moom Cheikhul Xadim rabbuhu boromam amrahu mbiram mépp mbiram mépp suñ borom tabaraka wa taala moo ko féete woon di ko lijjanti falam talxu loolu moo tax jublul ilayhi jëm ci moom al muqaddamaatu ya nga xamante ni nii ñooy jiitu ak wàcc xawaa kon moom làq na alxubba ak soppe ak mani moom cheikhul xadim radiallahu anhu suñu borom tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ni moo féetewoo léppam ba nga xamante ni nii dem na ba suñu borom tabaaraka wa taala bëgg koo tuxale fii ci àdduna mu jëm ci teru këru teraanga ga war a dëkkaale ak suñu borom tabaaraka wa taala suñ borom moo féetewoo léppam moo tax nam ko waxee rek lam tanxu nii muqaddamatul mawti wa qad rafaatu bil baqaai sawti ya nga xamante ni ñii ñooy jiitu dee lu mel ni feebar sukuraat yooyu yëpp dara jubluwu ko ca moom daal suñ borom tabaaraka wa taala daf koo jagleel ak sopp mbëggeelam ma ni qad woona ko alkarimu yàlla may aji tedd albarru tey aji baax lil karamaati mu jëm ca teraanga ya wa moom Cheikh Ahmadul Xadim istajaaba wuy na wootef suñu borom boobu moo tax xuyib fàddalees na suñuy bët ahmadu Cheikh Ahmadul Xadim ma ni moom daal suñu borom daf ko wo ca ya ba ko suñu borom wooyet dafa daal di jug rek wuy ji suñu borom tabaaraka wa taala man kaana ka nga xamante ni nii dafa nekkoon muxbitan di aji dëgmal ci lépp jëm ci suñ borom tabaaraka taala jëm ci yàlla sirran ci lu yelu wa ak ci lu biir xaaba kookee fàddu na ka nga xam ni léppam daf koo jëmale woon suñ borom tabaaraka taala doon abdan nga xam ni léppam daf koo jëmale ci suñ borom kookee fàddu na xaaba fàddu na mu ka nga xam ni moo doonoon ngën jikuy yare ma ni moom nag Cheikh Ahmadul Xadim taabatee na maxyaahu ak dundam aasha moom daal dund na fii taatillahi ci ak topp yàlla taala kawe na yarxab doon koo xam ni dafa mus di xemmeem fii xidmatil xibbi ci liggéeyal soppe suñu borom ba tamoo du yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ma ni moom daal dund gu teey la dund ndax dundam gi de lépp de mi ngi ko jeexal ci topp suñu borom tabaaraka wa taala ak ci liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ma ni multaqal makrumaati moom Cheikh Ahmadou Bamba moomu nag mooy ki nga xam ni mboolem tedd ngay ci moom la daje woon waarisu taaha mooy ki nga xam ni moo donnoon yonent yàlla muhammad fi sajaaya ci ay jikko wal xulqi ak jikko maanaam moom jikkoom yépp jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mooy ki nga xam ni laa yu annab kenn du ko yedd mooy ki nga xamante ni nii kenn du gis ci moom loo koy yedde ma ni aaba dellu na nag moom Cheikh Ahmadul Xadim lillahi ca yàlla boroomam zaaridan di boroom ngërëm indahu fa wal xalqu mbooleem mbindee fi suñu borom tabaaraka wa yi ña ngi koy tagg xaaba fàdduna kooku nga xam ne nii suñu borom tabaaraka wa moo ko defaraloon boppam bam jag mani naf'uhu moom Cheikh Ahmadul Xadim nag njariñam amma dafa matale woon alxalqa mbindeef yépp kaana nekkoon na raufan di ku amul ñeewante ci mbindeef yi wa raximan nekkoon na di ku am yërmande ci mbindeef yi yudd nii ilayhi jëm ci moom al mugarrab koo xam ni des koo tumurankel moom daal njariñam dafa matale woon ñëpp doonoon ko am ñeewante ci mbindeef yi doonoon ko am yërmande ci ñoom képp kun gis képp kum gis ñu tumurankel la daf lay fab jegeel la boppam ma ni neex baax na man jëmm jooju nga xam ni kaana dafa nekkoon waalidan di waajur lil yataama ñeel jirim yi kaana moom Cheikh Ahmadul Xadim nekkoon na yun sii daan fàtteloo al yatiima ab jirim al ab baayam bir rahmati ci yërmandeem waaw wal tubashir biyal yataama dawaaman ansi ansihim bi abaahum kulla xiini dafa ñaanoon suñ borom tabaaraka wa taala ni ko yow sama borom maa ngi lay ñaan nangay ngay bégal ci man mbooleem jirim yi te nanga leen fàtteloo seeni baay ci man moo tax moom daf daan fàtteloo ab jirim baayam ngir yërmande ya nga xam ne nii daf koy am ci moom mani nafaha moom Cheikh Ahmadul Xadim laaye biir na al muslimina fa huwa moom daal abuhum moo doonoon seen baay wa axuhum moo doonoon seen mbokk wa xaaluhum moo doonoon seen nijaay wal mu addib mooy ki nga xam ne moo leen doon jubbanti di leen yar huwa moom daal cheikhu suyuuxi mooy sëriñub sëriñ si kaana nekkoon na yu rabbi daan yare wa yu raq yi doonoon na koo xam ne daf daan yéegal yittey nit ñi mu jëm ci suñu borom tabaaraka wa kaana ni ki noonu nekkoon na yu hazib daan tàggat an nufusa bakkan yi taabaa moom daal dafa toppoon al mustafa ku ñu tànn ka wa asxaabahu ak ay saxaabaam maa xaalafa musta wuute al amra ak ndigalul suñu borom tabaaraka wa taala fahuwa kon moom daal yu jannab dees na ko mooyele maa lépp loo xam ni saa loolee dafa ñaaw moom daal musta juyoo ak ndigalu suñ borom tabaaraka wa ndax daf ñu woon dann yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam moo tax lépp lu ñaaw rek loola moom dees ko koy mooyele ma ni aslaha moom cheikh ahmadul xadim defar na alqawma aw nitam jaddada yeesal na an nahja man ngir léeyee sal nehjal Moustapha ngirum ku ñu tànn kata moo di yonante bi sallallahu alayhi wa sallam qaada moom Cheikh Ahmadul Xadim wabmat na assaadikiina ña nga xam ne dañoo soobu woon ngirum suñu borom ila rabb jëme leen ci suñu borom tabaraka wa taala mani radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm kaana moom daal nekkoon ne imaaman di njiit mustaqiman lu jub yub dii daf daan feeñal alhuda ak njub wa yu addib daf daan yare jaahada moom nag jihaad na alkaafirina ak yéefar yi duuna suyuufin waaye ba muy jihaad ak ñoom jëlul ay jaasi wa rimaaxin ay xeej fardan ba muy jihaad ak ñoom it àndul mbooloo moom képp la wa ma zalata moo ne musta dañ de yaxlib di leen not moom keppa taxaw yorul jaasi yorul ab xeej waaye teewut jihaad na ak yéefar yi ba not leen ilmuhu xam-xamam wa taqwa akuk ragal yàllaam silaaxaahu ñoom ñaar ñooy ay ngànnaayam arda alag na bihima ci xam-xamam boobu ak ragal yàllaam googu alkaafiriina mboolem yéefar yi ak dawwaxa kooku nag moo toroxal alxibb shaytaane mani moom Cheikh Ahmadul Xadim radiallahu anhu ba muy jihaad ak yéefar yi yorul jaasi yorul ab xeej àndut ak mbooloo moom képp la woon waaye di koo xam ni dafay not ay noonam not gim not nag ci ñaar la ko amee ci xam-xam akuk ragal yàlla xam-xam ak ragal yàlla daal ñooy li nga xam ni ñooy ay ngànnaayam ca la alag yéefar ya ca la toroxal seytaane dafa waxoon ni inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhayminu shaahidu man yassara moom Cheikh Ahmadul Xadim yombal na jàppandal na alxayra aw yiw lilladi ñeel képp koo xam ni kaana dafa nekkoon yabxiihi di ko sàkku wa adhab demal na dàq na an naa walis ñu ashiraara way bon ña wa sarra aku ay aksarul muslihiina mooy ki nga xam ni moo gën a bari ci ñi nga xam ni dañ doon defar ay defarakat lan yoo xam ni dañ doon defar fi shabi ci suñ peuple bii di peuple peuple Sénégal islaahan moo ci gën a bari ak defal mbooleem ñi nga xam ne ay nit lañ ñoo xam ni dañoo jugoon ngir defar doomi réew mi moom Cheikh Ahmadul Khadim mooy ki nga xam ne moo ci gën a bari ak defar nafa dàq na anhum wëlis aw nitam aljafa ak foñante wa taassub ak farfarloo ma ni qad daana moom daal daf ñoo woo lil musaawaati jëm ci ak yem waqad nafaata dàq na an naa wëlis ñu an nixwata ak ceddoo akub rëy ar raja yaakaaram daal yu xayyab taseesu ko moom daal lam waxoon rek talabta rasulallahi li fawqa maqlabi min allahi rabbi war rajaalam yu xayya bi suñ borom tabaaraka wa taala tasul yaakaaram ndax yakrahu dafay sib alladina mbooleem ni nga xam ni iqtafawu ña ngi koy xeñtu di jaar fam jaarlu ñoom dañuy sib an nixwata lépp loo xam ni dafa jëm ci ak ceddo ak yëg sa bopp ñoom loolu dañ koy sib huwa moom daal naaxi daraini mooy ki nga xam ni moo far en yi nga xam ni dafa nekkoon ci xoli doomu aadama yi ak seeni dënn ñu koy jàppalante xarrab mooy ki nga xam ni dafa jegeel alxayra lépp luy aw yiw ma ni akrama moom nag teral na almuslimina jullit ñi xaada wommat na munaahum seeni mébét lahum ñeel leen bi tawaalifihi ca ta ca taalifam ya kaana moom daal nekkoon na yaktub daan bind ma mooy ki nga xam ni moo teral jullit ñi moo leen wommatal seen i mébét mooy ki nga xam ne nii daf daan bind ay taalif yoo xam ni dafay jariñ jaam ñi di leen gindi ma ni kammala matal na allahu yàlla raayihu ak sàmmam la ko suñ borom tabaaraka wa taala sàmmloo woon suñ borom defal na ko ndimbal ba ko sàmmloo woon lépp sàmm na ko na ko borom tabaaraka wa taala sàmmloo ma ni taabaa moom daal dafa ni dann topp alkubara mbër yu mag ya niama kon baax na ar raayi aji sàmm ja allazi sàmm boobu nga xam ni tayyab teeyal na ar raaya ak sàmmam kammal taraayi kal kubara yi ma ni barakaatul abdil xadimi barke barkey cheikh ahmadul xadim xabat naa may nañu bil munaa suñuy mébét xad zaala deñ na ci ñun ashaqa ak texee di watta zabzub akuk déng déngi baari un moom cheikh ahmadul xadim mooy aji raw ji nga xam ni faaqa kawe na al awliya mboolem wali wa alaahum kawe leen tiim leen saabiqan doon aji jiitu fal amaalu moom daal ay jëfam amaalu tayyib jëfi ku teela woon moom dafa kawe wali yi anam gum man di doon doonoon koo xam ni ay jëfam yëpp jëf joo ca rek da nga koy fekk muy jëf joo xam ni jëf ju jëfi jëfi nit ku teey la manikaana nekkoon na moom Cheikh Ahmadul Xadim daa xasiyatin di ragal yàlla wa zuhdi nekkoon na di boroomu dëddu àdduna wa taqwa nekkoon na di koo xam ne nii kuy ragal yàlla la tey wattandiku ay tereem di jëfe ay ndigalam wa wafa in doonoon na boroomu matale yashrab moom daal fu mu toll ma nga daan naan min azbi mawlaahu ca ndox mu neex ba nga xam ne ni suñ borom tabaaraka wa taala daf cay nandal ay soppeem mani raabixun moom aji tonawu la fii buyuuxihi ci ay njaayam ishtara jënd na min hu tukkee ci moom mawlaahu yàlla boroomam maa qad baahu la nga xam ni daf koo jaay duuna mutib te lenn lu koy sonal fekk ko ca moom daal marchandise moom yoroon di ko jaay suñ borom tabaaraka taala la ko jaay te suñ borom tabaaraka jënd na ko mani ihtadaa moom nag dafa gindeeku lil xadil azimi jëm ca cër bu mag ba nga xam ni suñ borom tabaaraka taala moo koy joxe aziman mu doon ku màgg fa huwa moom daal dë ban rek yu xabab des koy soppaloo ilal idaami jëm ci cër yu rëy moom daal suñ borom tabaaraka taala moo ko def mu doon jaam boo xam ni moom dafa jug rek daa di gindeeku jëm ca cër bu mag ba nga xam ne nii suñ borom tabaaraka taala daf koo dencoon te nag kenn du ko am lu dul ca nattu ba gën a kawe moom nag dafa jug rek suñ borom tabaaraka wa taala wan ko yoon wa muy jaar ba jot ca cër boobee moo tax moom daal lenn lu suufee rek musu koo gis moom daal cër yu rëy rek ca la tegoon bëtam man i daw uhu ak leeram nag qad jala wuññi na ak zalma lëndëm an zawihi walif ay ñoñam huwa moom daal qutbul aqtaabi mooy xutbu xutbu yi faaza texe na bi mansab ci ab cër akub wàccuwaay boo xam ne bu kawe la mani yumnuhu barkeem moom cheikhul xadim aada wommat na al am na ak kóolute linnaasi ñeel nit ñi zax-zaxa barkeem soril na anhum walis nit ñi al munkaraati mbooleem yi nga xam ne yu ñuy sibla irxab kon yow na nga xemmeem fii yumnihi ci barkeem dafa wax ni lam yabqa fi lxalqi siwa man yatlubu barakati wa qad ataani lmatlabu kon mooy ki nga xam ni ci barkeem la suñ borom tabaaraka wa taala wammatal nit ñi ak kóolute ca leen fegalit lépp loo xam ne nii lu ñuy sibla kon daal ki gën a texe mooy kii xemmeem barkeem mani huwa moom xawsul wara mooy xettalaa konu mbindeef yi alxiyaasu bi nga xamante ni ci moom la leen suñ borom tabaaraka wa taala walloo ci moom la leen suñ borom tabaaraka wa taala dimbilee nadaahu ak tabam yurtajaa yaakaar manintaxaa képp koo xam ni nag jublu na lahu ñeel cheikhul xadim yasxab kookee dafay ànd alxayra aku yiw ba faw ma moom daal mooy ki nga xam ne ci moom la suñ borom tabaaraka wa taala xettilee mbindeef yi moo tax képp ku ànd ak moom aw yiw da ngay ànd ak moom ba faaw ma ni tusrafu ni ki noonu dee siy wëlbati al muubiqaatu mbooleem yi nga xam ni dafay alage amman talaahu walis képp koo xam ni toppoo ko wa yuqarrab képp koo xam ni topp nga ko des lay jegeel ila jannati naimi ci ajjanay suñu borom tabaraka wa taala ja nga xam ni mooy ajjanay xiwal man halun ma ni moom nag am naanu waay la am naanu kaay la yaa bushra woo naa mbégte li zi zama in ñeel borom mar woo xam ni qad ammahu daf koo jublu yabxi di sàkku ar rija ak mandi duuna tazabzub ci lu àndul ak genn dengi dengi ma ni moom daal mooy naanukaay bi nga xam ni képp koo xam li jublu nga ko bëgg a màndi da nga màndi bu fekkee dengi dengi woo ma ni raxala kon nag dem na asfaalixu aji baax ja alladi aji baax jooju nga xam ni kaana dafa nekkoon aydan ba tey muslihan di kuy baaxal moom dafa baax ba pare di baaxal qad xaaba fàdduna almurabbi ka nga xam ni nii daf doon yare ci suñu borom tabaaraka wa taala al ka nga xamante ni nii daf doon jubbante di yare mani dayfa dil arshi yow mi nga xam ni yaay ganuk yàlla mi nga xam ni mooy borom arsh yaa xadiimal muqaffa yow mi nga xam ni yaay liggéeykatub ku ñu xentu ko te moo di yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yaa surural ahbaabi yow mi nga xam ni yaay soppe yaay mbégum soppey suñu borom yi yaa xayra mashrab yow mi nga xam ni yaay ngën ji naanukaay yaa siraajal huda yow mi nga xam ni yay lampum njub al munira bay aji leer ayaaman yow mi nga xam ni laa yu daanihi du jéem a diiranteeg moom mbagg di ko jéem a jege aabidun benn jaamukatu yàlla zu taqarrub boo xam ne nii ma nga daan jéem a sàkk suñu borom tabaar euh, sàkkoo jege suñu borom tabaaraka wa taala yaa diini alladi yow mi nga xam ni yaay kennal diine ji nga xam ni ab daa feeñal na alxaq dëgg li muridi yi ñeel ay taalubeem jaaliyan di aji wuññi kulla xayhab bépp lëndëm haadihi lii daal xidmatun liggéey la boo xam ni yartulubu ma ngay sàkku bi ci liggéey bi ridaaka sa ngërëm aasin aji mooy yàlla jàmmul mazalimi juy aji bari ay tooñaange musnib juy aji bàkkaaru lii daal liggéey la boo xam ni ki la ko liggéeyal ab jaam la boo xam ni bàkkaarukat la ku bari ay tooñ tooñaange la waaye nag mi ngi lay liggéey liggéey bi di ci sàkku ngërëmul suñu borom tabaaraka wa taala ak sa ngërëm ma ni ko tantaxi dina jublu ilayka jëm ci yow Cheikh Ahmadul Xadim am daax yi samay tagg xabaani may na ma bi ka ci sa daraja bil fatxi ci ak ubbi man sama borom mi nga xam ni anaara moo leeral liye ñel ma al lubb samam xel suñ borom tabaaraka wa daal moo ma defal ak ubbiku leeralal ma sam samam xel ci sa daraja ma ni ko fustale yow nag Cheikh Ahmadul Xadim texe nga bil makrumaati ci mboolem teddi nga yi yaa man yow mi nga xam ni xabaahu may na ko bi mazayaahu camayam ya al Mustafa ku ñu tànn kata moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man yonent boobu nga xam ni huwa moom alxibb mooy soppe suñu borom ante yow nag. qutbul aqtaabi yaay qutbub xutbu yi aada wommat na laka ñeel la allahu yàlla al ataaya ay mayam fa aati kon nag na nga jox ca sama yooyee man sa liggéeykat bi nga xam ni yarxab mi ngi xemmem fii ka ci yow durari sama way nga xam ni dama koy nuróole ak or ci rafetaayam tanxu dafay jublu sarmadan ba fàww laka ñel la yaa man mi nga xam ni laa yu jaarika du jéem a rawanteeg yow aabidun benn jaamukatu yàlla boo xam ni kaana nekkoon na yan sab di sonne ak jaamu yàlla xus kon nag jëlal madixi samaw tagg jaaral ilaahi yow mi nga xam ne yaay dëkkandoobi yàlla taala kawe na xus jëlal sanaa samaw kañ yaa xayra man yow mi nga xam ni yaay ngën ji koo xam ni kaana nekkoon na yaktub di bind laka ñeel na la madxi samaw tagg yan xu yow rek la samaw tagg di jublu fa anta ndax yow imaam yi yaay sama njiit wa malazi yaay sama wéeruwaay fa man yalus bi ka képp koo xam ni wéeru na ci yow cheikhul xadim yaqrub kookee amul benn werante dafay jege suñu borom tabaraka wa taala yaxtawi dafay làq alqurba ak jege yàlla man képp koo xamante ni nii laaza weeru na bikum ci yéen inni moo tax man mii de laa izun ajikuy wéeru laa bil abdil xadimi ci jaamub yàlla boobu doon liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam al muhazib jaamub yàlla boobu nga xam ni moo doon yare di defare di baaxale faariqal habbi yow sama borom yow mi nga xam ni yaay pep saxal ko wan nawaa yow mi nga xam ni yaay xar saal yi di di di di ko saxal di ca génne ay garab laka ñeel na la xam di sama cant wa sukuri ak sama gërëm yaa man yow mi nga xam ni xabaani yaa ma may bi matalab ci sama sàkkuteef yaskuru dina sant allah yàlla jàlla màgg na kulli sama lépp hadaani moom sama borom gindina ma bi xadimi ci cheikh ahmadul xadim alladi cheikh ahmadul xadim mi nga xam ni aktub duma den di bind lahu ñeel ko aw almadaxa aw tagg ma ni ko kon alamal makrumaati yow mi nga xam ni yaay drapeau ngay yaa man taxallaa yow mi nga xam ni da ngaa takkaayoo bi sajaayaa muhammadin ci jikkoy yonent yàlla muhammad zaata addub di boromuk tegginu batala diini yow jàmbaari diine diine ji saaxibal majdi yow mi nga xam ni yaay borom tedd nga ji yaa man qad ataana yow mi nga xam ni yaa ñu indil bi xayri nahjin ci ngën ji ngir wa madhab ak ngën ji yoon yow mi nga xam ni yaa ñu indil ngir mi gën ci ngir yi indil ñu yoon wi gën ci yoon yi asadal kaafirina yow mi nga xam ni yaay gayndeg yéefar yi yaa man yow mi nga xam ni xaniinaa woomal nan an xurubil wërif ay guerre ak i xeex bihi ci moom wa fi silmi te ci jàmm ji nga nga xam ni ci lan nekk xeexuñu yëkkatiwul ngànnaay naxlib teewut not nan suñuy noon yow ci yow lan amee nekk ci jàmm xeexuñu te teewut ba tey ñu ngi not suñuy noon diinu xayril wara yow nag diinay ngeen ji mindeef di lislaam itazza teddena bi ka ci yow shukran laka kon jaajëf faxra sudaani yow mi nga xam ne yaay ndamul nit ñu ñuul ñi yaa muxziyal xib yow mi nga xam ne yaa toroxal seytaane yaa xabibal qur'aani yow mi nga xam ni yaay soppeb alqur'aan yaa man yow mi nga xam ni xuzta làq nga hudaahu njubug alqur'aan abdan di ab jaam bihi ci alqur'aan li xaaliqika ñeel yàlla mi nga xam ni moo la bind ar rabb tey sa borom waxadiman nga nekk di aji liggéey bi ci alxuraan li xayril baraya ñeel ki nga xam ni moo gën ci mbindeef yi xiina kaana ba nga xamante ni nii nekk na al addu wasa noon boobee nga xam ni moo la yóbbu woon ca géej ga yel huu di caaxaan wayal ab ak di fo nga xam ni bu tubaab ya nekkee ca seenum fo nga taxaw jubli ci suñ borom tabaaraka wa taala di ko jaamu udxulil jannata léegi nag duggal aljanna istarix nga noppalu paalama kunta ndax yàgg na boo nekkee tutiyu daan topp arrahmaana yàlla rabbaka sa borom tataab di ko sonnal ma ni ko tey nag mën ngaa dugg aljannata dem noppalu ndax kat yàgg ngaa nekk di topp sa borom tabaaraka wa taala di ko sonnal dur kon wëral bi am nin ànd ku kóolute fii fii jannatillahi ci ajjana yàlla ja jaawir na nga dëkkaale xayra jaarin ka nga xam ni mooy ngën ji dëkkandoo ta moo bi sallallahu alayhi wa sallam fii jannatin dëkkal ak moom ca àjjana jooju nga xam ni laatu xarrab kenn du ko ràppal kër la goo xam ni du ràpp moom aljanna xaalidan ngay aji sax nag fiihaa ca àjjana joojee zaaridan di borom ngërëm wa amaanin di borom kóolute mamuri diika ànd ak taalu taalube man sa taalube yooyu nga xam ni kafaytahum fegal nga leen ak tabb lépp luy ak perte nge tey jii daal duggal aljanna di wër dëkkaale ak ka nga xam ne mooy ngën ji dëkkandoo ta mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sax ca àjjana doon borom ngërëm doon borom kóolute ànd ak sa taalu ba nga xam ni yaa leen fegal lépp luy ak perte nge ma ko yan xu dina jublu laka ñeel la jazaun ak pay minal karimi tukkee ci aji tedd ja tamoo di suñ borom tabaraka wa taala xulta ndax danga làq ridwaanahu ngërëmam yajzub moo tax yàlla du deñ di bijji di xëcc laka ñeel la alxayra aw yoom yajzu bu yàlla dafay xëcc alxayra aw yiw sarmadan ba faw laka mu jëm ci yow rabbun moom borom boobu nga xam ni yurdi ka daf lay gërëmloo bil ataaya ci ay mayam yaa zatta jannub yow mi nga xam ni dangaa mus di wattandiku lépp loo xam ni suñ borom tabaaraka wa taala daf koo tere jaawiri rabba kon dëkkaaleel ak sa borom fil jinaani ca àjjana yooyee muaafan di ku ñuy jàmmal murtadan di ku ñuy gërëm yaa man yow mi nga xam ni fadluhu sa ngëneel lay sa yuxjab kenn du ko yiir yow mi nga xam ni sa ngëneel moom luy feeñ la loo xam ni kenn du ko nëbb ni'matal xalqi yow mi nga xam ni yaay xéewalug mbindeef yi yow mi nga xam ni yow la seex siidiya baaba waxoon ni alcheikhu ahmadu nicmatun awlaaha haadi alxalaa'iqa kullaha mawlaaha ma ni ko yow mi nga xam ni yaay xéewalug mbindeef yi xuz jëlal madaiha hibbin taggi ab soppe boo xam ni maa la dafa jéng laka jëm ci yow bil xubbi ci ak tofeelam ak mbëggeelam fal qalbu moom daal ab xolam tayyib xol bu teele ci sopp gim la sopp nabtari kon ñi ngi sàkku min rabbil baraya tukkee ci yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi salaatan ak julli wa salaaman ak jàmm li zil kalaamil mu tayyab ñeel ka nga xam ni mooy borom wax ju teeja tamoo di alquran ak ak hadis taaji rusulil muhaymini kooku nag bu fekkoon yonent yi alayhimu salaatu wa salaam dañ leen di misaal dañuy wax ni moom mooy ka nga xam ni mooy mbaxana ma nga xam ni moo féete kaw alqurashi yi kooku nga xam ni mi ngi bokk ci giirug quraysh al hashimi yi kooku nga xam ni mi ngi bokk ci giirug hashim alxilli xaritub suñu borom ba alhabibi soppeb suñu borom ba almuqarrab kooku nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko may ak jege suñu borom tabaraka wa taala yaa ilahi kon yow yàlla sama borom salli dollil xéewal alayhi ci sa yonant boobu wa sallim ta nga dolli ko jàmm warda te nga gërëm dëban ba faw anil xadimil muaddib ci Cheikh Ahmadul Khadim mi nga xam ni moo nekkoon yarakat bi moo nekkoon jubbantikat bi nga xam ni moo fi nekkoon di la yaral say jaam ak di leen jubbanti kon mbokk yi loolu moo doon xasida gi wassalaamu aleykum taala wa barakaatuh jërë ngeen سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني